association bi nga xam ne ay waay laago lañu nekkee ci département bu Mbacké ak Touba ñoo doon amal bés bi nga xam ne journée de solidarité la doon leeral mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko mu jëm ci ay bekke chaise roulante ak li nga xam ne dafa aajoo ci seen liggéey loole nag ñu sàkkoo ci ndimbal ci mbooleem kilifa yi nga xam ne mën nañ leen jàppale ndax dafa mel ni état bu Sénégal da leen fàtte wan leen ginnaaw te moo neen ñoom nee ñu ay citoyen lañ. ñoo xamante ne bi ñoo ñuy taxawu ci lu mel ni ay puus-puus wala ay bége wala yeneen yu demee ni moom ci lañ xalaat ni nag war nañu dem ak suñu bopp jéemal suñu bopp loolu nag moo waral tey jii ñu jàpp def journée bi jàpp ko euh, tey ren yi di troisième édition euh, bi ñu koy def nag li ko waral mooy am na ci euh, personnes handicapées yoo xamante ni ñi ci kër yi te wallaay asim maa ngi ci ay vidéo yu yoo xam yu yéeme yoo xamante ne bii ñu ngi ci kër yi te mënuñu génn ngir ñàkk doxuwaay suñu xaadim mii xam na li may wax suñu xaadim saw parce que am na ñu ma indil seen i seen i seen melokaan waaye loolu yëpp ñuy xeex ak ak yelleefu une personne à situation de handicap ngir ñu jot seen ak ak seen yelleef loolu nag li ñu koy may mooy ñun ñi nga xamante ne bii ñun la yàlla boole ñu doon ay handicapé ñu bëggante soppante wóolante waaye nag fexe jëmale suñu mbir te kanam ñi nga xamante ne ñooy bonne volonté yi ñëw tey ci jataay bi ñoo ngi leen di diis suñu bopp ngir ngeen jàppale leen te yàlla tax ndax am na ci ñoo xamante ne ñi ci kër yi ñun nag buñ muñee loolu mënuñu ko muñ puus-puus yi ñu dajale woon ngir bëggoon koo joxe ci bis bi bëri na ci ñoo xamante ne bi jox nañ leen ay puus avant bis ah, xam naa am na ci ñoo xamante ne bi interview bi dana leen jël ku ci mel ni Sëñ Fallu mi ngi fii soxna ak euh, beneen Xadi kon euh, ñi ngi euh, sant ñëpp rek ah, di wax ne suñu xol sedd na ci jataay bi waaye si Moustapha may lancer appel ci gouvernement bu senegal ñu joxaat wàccuwaay indi handicapé yi féete féete ci région de Diourbel rawatina département bu Mbacké li tax ma wax loolu nag mooy dafa am centre boo xamante ne bii dañ ko defar ngir personne handicapé yi mu nekk fii ci Bambey Ablaye Wade tabaxoon ko defoon ci un milliard cinq cent millions yàlla dogal nag loolu dañ koo foqati ci loxoy handicapé yi ndaxte boo boo diggee moo ne dañ ko cee bi parce que jël nañ ko ci handicapé yi léegi leneen lañ ko jël ngir euh, di ci di ci commerce kon euh, ñu ngi lancé affaire bu baax a baax ci gouvernement bu Sénégal ñu joxaat ñu sunu moomeel boobu ndaxte ab Ablaye Wade moo ñu ko joxoon kon ko réew mi nag si mu taxaa daa waxoon ne bàyyi moo fi ne kon doom moo fi ne te bàyyi ñu samp leen doom di ko simpi kon monsieur le président ñoo lay wax ne la suñu centre boobu nga jébbalaat ñu ko te yàlla rek tax ndaxte ay personnes handicapées ñoo ci waroon di tedd ñu foqal ci seen loxo kon ñoom ngi lay lancer appel rek jàpp nañ ci loolu ñu jotaat yi incha allah mu mel ni jotaay bi mi ngi bugg a guddi tey it sëñ Xaadim mi ngi nii toog te dafa war a génn euh, sëñ Mamoud mi ngi nii toog euh, directeur Galaboy ñi mu ngi nii toog xam naa kon dañuy gàttal suñu kàddu rek jël euh, jël jox sëñ Xaadim bu noppee ñii directeur yebal ñu ngi nii toog sëñ Mamoud Mbacke Seexu mi nii doon soxna Maam Anta xam naa moom mooy jébal sëñ Pape Ndiaye mi nga xamante ni moom la ñu jébal pour bi soxna Maam moo koy jox kon xam naa suñu xarit moom la ñuy jox rek comme que moom dafa nekk ci yoon bu noppi rek ñu moom wéyal ci Youssou mu fi nekk ñi sant bu baax nag euh, Adama Seck bés bi nag ki nga xam ne moom moo di xaarim géey di jànkat teew na fa am fa kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko dafa séenee ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñuy sàkku te lépp luñ nekk rek dana ci dugal loxoom. jamono jii ne toll nag day jamono joo xam ne euh, képp ku tasaare si bopp balaa ñu laa dajalewaat ba di la for di la dajale du xaj ci sa dund kon na fexe ba booloo gi ngeen booloo. na ci yàlla jiitu ànd leen ngir yàlla ginnaaw bu ngeen àndee ngeen di dimbalante ngir yàlla di suturaalante di jàppalante ndax sëñ Abdou Lahad Mbacké radiallahu anhu nee na woon kuréel bu ne lañ séq balaa ñu caa mën a jariñoo jariñe ca dañ koy boole takk ñëw say kon nag boole gi ngeen boole seen bopp takk ko ñëw say ngir fas yéene jàppalante ak dimbalante bu leen ci dara delloo ginnaaw ngeen ko gën a jàpp gën ko fonk ndax seenu booloo rek ci la njariñ mën a tabbi bu ngeen tasaaroo itam du wàññi dara waaye dana mett dana metti ci ñëpp kon booloo gi ngeen booloo lu ama am solo la ndax bi ngeen ko defee du yem ak bi ngeen ko deful woon ginnaaw bi ngeen ko defee itam gis ngeen booloo gi lim leen jariñ kon seen ànd bi yàlla na yàgg am na ngeen dem ba seeni njaboot di ko ànd te yàlla sàmm leen te aar kàddu yi ma ci loolu sax day sama yéene rek waaye kàddu yi sëñ Modou mbay njaay wax dara manqué wu ci lépp mën na ca rafet na mënewu ko sax ni mu ko mënee maa ngi ci sant bu baax wàccuwaay bi ngeen ñu ci jox lu ñu yëg la tey fa ma bàyyi ko sori na lool maa bàyyi ko ci gannaaw mbuur seen bis bii rek moo ma indi Touba te maa ngi jëmaat ci boori Kébémer waaye waxoon naa ni lu ma lu mu dëng-dëng rek ak lu mu xat-xat danaa ñëw ba ngeen gis ma mu ànd bis bi na ma leen waxee woon ne dinañ ko ànd ba mu jeex loolu rek mooy suñu jéego yi di leen di sant nag di leen gërëm cant bu ngeen am ci moom am nañ ci yéen bu ko raw di leen ñaanal yàlla te di ko sàkku ci yéen bu baax a baax dégg ngeen jëf